barke bi sëñ Tuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi nuyu mboolem mbokk yi fi teew yépp di nuyu mboolem suñ mag yi fi ne yépp di leen jottali it ni ko sëñ Abdul Fataa waxe suñ mag dafa wax ne kaddu gi nga xam ne moom la waroon a wax moom tax moom lay njëkk a jottali kaddoom dama ko waxoon ne man nanga ma jottali waaleel sama kaddu nee na nang ma jottil kaddu gi wax ma ne ma nang ma njëkkeel ci kaddu gi santal ma sëñ siidi te gërëmal ma ko ci cër bii nga xam ne at mu jot ñu jox ma ko ngir xam guñ xam sama diggante ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké mu ne loolu dafa fees xolam ba nga xam ne tey jii mënut a waxal boppam mu ne naa ko waxaaleel ne ma nag Sëñ Abdou Lahad dafa ma dafa seqoon nag man ak waajur akuk sëriñ bépp cër boo xam ne nee na nit mas na ko doom mas na ko am ci baayam nee na cëral nag ko nee na bépp cér boo xam ne ab taalibe mas na ko am ci sëriñ nee na cëraloon nag ko kon nag loolu daf ko màndi lool fees ko lool moo tax mu ne buñ demee nag ma jottalil sama kaddu ak sama ngërëm ak jàpp gi ma jàppal gi ma jàpp giñ ma jàpp ngir noonee ma siñ bi téye woon ñi jox ma cër boobee boo demee nang ma jotalal loolu loolu la ma santoon ne naa leen ko jot li nee na ni mu nekk ci xolam aw làmmiñ mënu ko nee tudde ndax Sëñ Abdou laat jaar naa ak moom nee na foo xam ne lépp mënu ko wax waaw ndax am na ci loo xam ne nee na mbirum baatin la loo xam ne bëgg ko wax nit ñi di ko dégg waaye nag na ngeen xam ne cër ba ngeen ko joxoon sëñ siidi nee na yow dangaa ñëw suuxat ko waaye wàññiwoo ci dara kon nee na mi ngi bokk yépp di bëgg ci cër boobu ngeen ko cëral loolu la ne moon buñ àggee nanga ma ko waxal nee na daal na ngeen xam ne xolam sedd na yëg na cër bi mi ngi koy bànneexoo xam ne it diggante sëñ Fallu ak sëñ laat Ahad ak fi sëñ Abdul féete woon sëñ Fallu loolu la ma waxoon ne naa leen ko wax kon nee na mi ngi leen di mi ngi gë mi ngi gërëm ci cër bi ci bég lool tey mu yàgg sëñ Sidi nga yàgg jiite bisub sëñ Abdul bii yàgg cee woo nit ñi ñu nit ñu yàgg wuy si loolu la ne woon naa leen ko jot kon mu ngi leen di gërëm di sant tey ñaan ñu teewe ko waat ay déwén yu bari boo ko defee nag ma jot sama kàddu ki nga xam ne suñ siidi moo ma waxoon ne ma buñ àggee nga nga jo nga nga nga jël fa kàddu kàddu gi suñ siidi mi nga xam ne lépp la ci nun moo waxoon ne ma buñ àggee na nga fa jël kàddu te def fay seede seede si nag mooy ginnaaw bu mu nuyoo bokk yi fi teew yépp siyaare alxalifatul am li taaifatil muridiya ayyadahu llaahu wa nas wa nasarahu atama muraadahu jottali waa léeg-léeg nuyoo sama kilifa sëñ Cheikh Mbakke moom sëñ Abdul Xaadir Mbakke ne moom laa àndal maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di ñaanal sëñ Sidi yàlla àggale yéeneem ci liggéeyal bi mu bëgg ci li muy liggéeyal sëñ ndax li ñu xam ci moom del te jaxasoon nañu moom lool waaye li ñu xam ci moom mooy itteem itteem ji gën a kawe mooy bëgg nek nekk taalibe bi sëñ ko don kuma don laaj dal ban itte la am dal itteem bi gëna kawé xamna né moy ne bëgg nek nekk taalibe bi sëñ bu sëñ bi nangul ak taalibeem loolu la xam ci yow la ca top nak moy ku wér jikko la moo tax yow mëna andal la ca topp it mooy wayaf giñ da wax ci sëñ blaat loolu mom néna ci moom kon nak yalla na yalla yàlla mu mu mu liggéeyam sëñ touba jappalé ko ci mu mu li ko sëñ Muntaxaa jital ci liggéey bi ni yalla na ci yalla defal pëstéef bi mu ci am yalla defal ko ci ndam bu baax a baax a baax te seigne muntaha li yene yéene seigne bi yalla agalel ko bu baax baax bisu seigne Abdul Ahad Mbàkke nak bisam waxtan ci jafe na ndax man lima xam ci mom kuma ko don portale lo ne ma sëñ Abdul Ahad xam ci mom man ci nima koy tënki ni dama nan jëm la jo xani ko ak jambar la ku amoon xel la la ca topp mooy ku amoon fit la te xil eh, eh, fit ak xel nga boole leen am ci histoire dañ leen di wàññi ñi ñi boole loolo ndax ñaare am xel boo ko amee saw fit da koy wàññi waaye moom ku yàlla dimbali la ba yii amoon na ko amoon na fit am xel mu bari am ak njàmbaar loola nag ku ma doon laajit ne ma ana lan moo doon bugg sëñ Abdou daat moo ci ñett rek laa koy tënk sëñ bi képp laa xamoon ci bëggam la ca topp mooy dëkkub sëñ bi la ca topp mooy xasida yi sëñ bi sëñ bi sëñ bi ci boppam li tax ma tënk ko ci bëgg gi mu bëgg sëñ tubaa moo yóbbaale lu sëñ tu ku mbokkal sëñ tubaa rek mu bëgg la gëm la ñi sëñ tubaa defar mu defar ga neex ko mu bànneexoo ko bég ci loolu laa seetlu ci ne moom laa gisoon ci moom dëkk bi it li ma ci seetlu mooy bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa moo tax mu bëgg dëkk bi moo tax li mu jàppoon ne waru fee am lépp mu fexe ba dindi ko ba ni sëñ bi ñaanoon ci Matlabul Fawzayni mën a taxaw bu baax a baax li sëñ bi lim lu mu jàpp na ci dëkk bi lu neem mu jaral ko ko ngir loola am xasida it li ma ci seetlu mooy moom dama cee teg sama bët ni mu ko doon jànge ak ni mu ko ittewoo ak li mu waxoon ne lu mu murit sàggan sàggan xanaa war naa mokkal ci xasida yi sëñ Tuubaa ñetti junniy bayit nee na murit bu daal sàgganu murit daal xanaa wërta weesu nag nga fexe ba ñetti junniy bayit nga mokkal ko ci xasida yi sëñ Tuubaa kon foofu la tegoon xasida yi sëñ Tuubaa kon foofu laa teg li ma ne ku bëgg ku bëggoon xasida yi sëñ Tuubaa la mu loolu nag noonu mu nuuree sëñ bi nag moom ko mayam xel mu leer moo xam ne lu mu la wax rek xikam la xikam yee nag benn mu jëriñ la ci adduna wala mu jëriñ la ci àllaaxira ma génne ci rek xëy na lu man ñetti xikam rek ci yu teew nii ci sama xel rek benn bi mooy daa ma sama digge ci moom mu ne nit ku ne ni ñuy jànge faatiye lañ ko war a jànge faatiye kenn ku ne ci ñoon jàng na ko ba mokkal ko nee ni nit boo boo koy jàng lañ la ci war a mën a wax loo xamutoon waaye bi nga ko jàngee ba mokkale ko ni koy faatiye ku ci yokku sàdda war nga ko xam ku ci wàññi sàdda war ko ndax loolu xikam la la ca topp mooy dafa wax ne koo bëgg a àndal te ànd ba rafet na nga ànd ba danga koy téyel sa bopp te bu leen ko awante bokk ko bàyyee nee na bu leen ko awante leen ko awantee waxtu wu toqee <laughs> waxtu wu toqee rek foofu lay fi yem bokk ko bàyyee fa mu bëgg mu yem fa rek la yem boo ko téyelee sa bopp nag dara du ko yàq nee na koo bëgg a àndal te ànd ba sax sa diggante eh, ànd bu sax sa diggante yàlla nee noonu ngay de loolu am njàngale la moo xam ne ma ne sa ci yor ëpp ak ba ca topp mooy Abdou Diouf président Abdou Diouf mii la ma sëñ Blaat nettali ne ma maag koo xam nee na Abdou Diouf seet si ma laaj ko ne ko waaw waaw Abdou eh, man ni ñuy yore am réew waaye nag lii ne moom xam naa ko ni ñuy yore aw nit ak ni ñuy yore kër ak ni ñuy yore dëkk waye am réew nag jangut jàngut nee nag abdu ne ko ah yakana bo boo noppee ne ko yakana naa duñu soree de mu ne ko abdu ne ko nu ñuy yoré ñuy dal, nu aw nit ak kër mu ne ko kër dal ni ko yore yi rek la da ngay wulli sa bop wulli sa der ngir bëgg a lori nit ñi ba loola way wax nga mën ko dégg moy moy ba ci ñëk ba ca top moy bo xé fu ñariñ fo digg ñëk andi ko ci kër gi ba ci topp mooy bu ñëwee na ko teg ci ëtt bi na ko teg ci ëtt bi nangu koo bokk ak ba ba nga ko bokkee ñëpp it na nga cee nangoo na cee nangoo gën a tutle ba ko juróomeel mooy baat baat baatu kër gi nag baat ci bopp lay sax baat bi teel ko sa bopp juróomi yi daal ku ko yorew nit sa adduna dana sa kër dana jag yaakaar naa ko ko yore dëkkit sab dëkk dana jag Abdou Diouf ne ko ku ko yoree bu réew it réew ma dana jag wa kullu aamin wa antum bi xayrin yàlla na yàlla dimbale wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu